ma ñew ci serigne abdullah Diop bisri serigne bi xam nga dafa dem ñetti voyage ñibbisi te sëriñ bu salaa nee na kenn mësta dem dellu si mu dem ci geej gi dem gannar bi mi dem gannar nak dafa am lu taxone ñi diko fa yobbu moy buñ ko fa yobbo nit ku ñuul amna complexe subnar bu fa demee ña fa ne ci ay boromi xam-xam gannar go xamné abdullah Abdullahi Ibn Alawi yu ma nga fa gannar go xamné Mualla ma nga fa gànnaar goo xam ne Mouhamad ibnu Asan nga fa gànnaar goo xam ne maanaam banni daymaan nga fa gànnaar goo xam ne sërif surafaaw yëpp nga fa boroom xam-xam yëpp nga fa yor der bu weex bu fa sëñ tubaa demee sori na nit ñi duñ fa mën a dem ñaareel ba nag mooy bu fa woote ay taalibe du ko am ndax naar yaa ko ëpp xam-xam kon sëñ Ablaye Diop ga Bichri sëriñ tubaa nan la toje gànnaar bannaar yi jébbul ci moom di ko raamal waa kay jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf alaaji Busra ci waxtaan wu am solo wi ak alaaji Gànn yàlla yàlla sàmm feexul xadim radiallahu anhu xam nga bi mu jógee ci géej gi ndax damay bàyyi sama mbokk yi ginnaaw bi ñu wéyal mm-hmm. man comme ci gànnaar nga ma laaj bi mu defee ci géej gi juróom-ñaari at yu topp ñibbi si 11 novembre de ci la ñëw bi mu ñëwee dem na ndar ndar diir bu gàtt la fa def fukki fan ak juróom mu yónni maam Cheikh Issa jenn borom Dieng nekk Lagan mu dem ko wool borom daarul moxti jàmbaaram ca ñu gise defe naa tey moom la ñuy màggal ci nisfu saxbaan ca daarul moxti ba mu fa jógee dafa jabal si Louga fa la ume kooram googu ci fin 1902 bi mu fa umee koor diir bu gàtt mu jàll siise ñeenti fan ya ca bari jàmm siise juróomi fan yàlla ñëw kër sëñ siréloo sànnoo si fa nekk di leen naafal ba fa la korite sanno seet lu bari xew fa fa la jàmbaar ji nga tuddu legi seigne Ibrahima job al mas'ari jébbaloo fa la ko sëriñ Tuubaa jomale won ci bor bi mu amone muy boru juromi temer te mu sadd ay woy neub woy ya njabotu bopam xamuñu ko jox ko yàlla sunu borom fa àlla ya adyunun aqsamtuha bainal kirami kiraami la ala an yaqduha bind ci eh, bayit yu rafet muy bor yi ko dalon mu ni séddale naa ko ñeenti saaba yi Omar Usman Ali ak suir Muhammad mi seen sang di sunu sang ñun ñep jël lettre bobu sul ko jël li ñi wax wañ fas li ci sew mel kawaru jigéen ñi li ñi letto mom la ko lëmase dal di sul lettre boba ca kadior boba cheikhul khadim ci ci tukki bi 1902 googu mu ñëw bi mu tollee Sànnuusi ci la yàlla dogal sëñ Mor Absa Diop mii wéy juru sëñ Ibrahima Diop almasar yi yebal njaboot gi nu ziyaare ci Cheikhul Khadim ndax booba Sànnuusi ñépp a ko doon ziyaar si di ko ndokkeel fa la sëñ Ibrahima Diop almasar yi ñëwee ba mu ñëwee ba nuyoo Cheikhul Khadim bay génn sëriñ bi woolu ko ba mu del si sëriñ bi wax ko ni sa bor ba yëg naa ko ni ko laata ngay toog jox ma mbuus moo mu def koppar amoon na juróom ben témèr sëñ bi berlo ko témèr yi juróomi témèr yi mu xamal ko ni Abu Bakar neena témèr téeméeram ngi ca bor Omar neena témèr téeméeram ngi ca borba ba Ousmane nee na ngi ca borba ba neena témèr na ngi ni ca borba dor ni ko ma wutu Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama témèr ngi ca borba ba la daanu jëllu wax ni amatul tiofel ci Bagdad amatul tiofel ci faz fumu fekk serigne touba ci Jolof jaay na fa ay nokkeem ما لي لبغداد سوق لا ولا فاسي لكن برؤيا جلف قد بعت أنفاسي ذاك الخديم خديم لا يماثله من قل أو جل من جن ومن ناس ذاك الخديم الذي قد فاض ضائره وباع من لم يزر بالبوس والباس dem bay tëj mu ne wa saara yax bitu nii man kaana maskanahu fii batni bagdaada aw fii misra aw faasi ponkal moomu nga xam ne bind na lu ne ci sëñ Tuubaa foofee la jébbaloo woon jox boppam sëriñ Tuubaa mu jóge sànnoo si jàll na ci bërëb yu bari bokk na ci bërëb yi mu jàll ñaxal bokk na ci bërëb yi mu jàll kër Mandumbe Xari bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na fu ñuy wax Mbàkke Kajoor ziyaare baayam sëñ Ibrahima Mbàkke mi nga xam ni moom Maamoor Anta bokk lépp bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na Daaru Salaam hmm. waaye Daaru Salaam mu ngi fa ñëw ci 21 janvier 1903 mam Cheikh Anta borom deureum ngeureum rakam ju deugal ja ganale ko ngan go xamni ni ñetti fan bis bu jot fuki ña fukki nak ak juróom fukki geleem ak juróom fukki xar ak juróom fukki bëy ak ba juróom-ñetti fan yi mat mu nar nit rendi ko ngir santale serigne Touba ci ñibisi gi ni bu ko nit ñepp yegge ñanaaw yi sax war ni serigne Touba damay teral tan yi ku ñi wax As Camara ni won day tëdd ñu ray ko jox ko tan yi As Camara moomu nak taalibi sëñ Cheikh afsala won bu mu joxon Mamor Jaara borom Sam yalla dogal sëñ bi gorel ko bam fa jugge la door jall jàll ci daarul darul daarul mannaan nak mu indiwaat coow li ko yobbu gànnaar da xam ngeen ni bi sëriñ bi ñewé darul mannan dir bu gat dafa am lak ku ko dal bi lak gi amé mu dem daru alimul khabir ndam tok fa ab dir yabal talibi ñu defaraat kër gi bërëb boobu nga xam ne borom daaroo fa newoon bi ñu defaraatee kër gi mag ñi defar ko ba noppi sëriñ bi sant maam Cheikh ibraahima Fall ak maam Cheikh Anta borom daaru salaam ñu jëndi ay meubles yu ñu installé ci kër gi ñu demoon ndar di ko jëndi bi ñu jëndee lal yooyu ak toogu yooyu def ko ci ay saak sëf ko ci kaw gëléem yi ñëw ba tollu dëkk bu ñuy wax googo ci wetu ndar ci la ñu dajeeg benn pël bu ñuy wax Demba Ngari moom moo ñëw fekk na agent secret la mu laal ko ci loxom daal di signaler ko mbaxan ni cheikhul khadim da melni ni giñ ko génne won yobbu ko ci geej gi da ko metti batay mu ngi wajal jihad pour jëm ci sen kaw lolu yak na xelu tuba bi bi nga xamé ni mbaxan bind na rapport mbaxan tam tuuma yoy bi mu amé mu tuumal Serigne Touba ci nasaran bi ni len day préparer jihad motax Serigne Touba ngeen deg ca ya jumlatan qad sallasoo bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw walidu ahrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilah wa innani la mujahidu wa zannantumu anna al madafia indana wal kullu minkum zu qillan wa yuhasibu fa maqalukum inni ujahidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhayminu shahidu génnewaat nañ ma ñuy wax ni damay def jihaad damay def guerre sainte dama denc ay ngànnaay ci sama kër te ñoom ñi koy wax ñëpp ki moo leen jàpp ak bañ lu baax ak nangu ni jaamu bi yàlla laa bu koy jaamu tey liggéeyal yanantu bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag bi mu amee ñu tuumaal sëriñ Touba ci daa yor ay ngànnaay ci la tubaab bi nag woote booba chef de canton yi ñoo fi ëpp galon ñépp ay dikk wuy si woote tubaab bi ñu daal di wax nag ni sëriñ Touba lii ñu ko jiiñ nu mu demee bi ñuy laaj nag bahkan wax ni non la demee dafa yor ay ngannaay te dina dem visiter ji ko ñeneen ñi ci dugg ñepp ruuxale ñu yaq xalaatu tuba yi ci la nak ku ñi wax buur ñew sérel seigne Touba rafet mo wax nasaran bi leen ñu tumal seigne Touba amul cheikhul khadim mi ma xam yalla képp ko ñor ak yanantu bi ak alxuraanam man de ci dola waye duma fekke ay tiaxan seigne Touba dincul ngannaay wajalul guerre du togn nitu jam la ñu ne ko yow buur siin kii ngay défendre lutax nga koy défendre mun dama nangou deug rek motax ma wax leen deug gog ñu ne ko li nga wax suñu démé ba yek ni denc na ay ngannaay lepp lañu tek ci sa kaw ci daan folli la nga ñak say galon mu ne d'accord na ñu ne ko suñu démé ba gis ni li ñuy tuumal suñu tuubaa amna do dootoo dara ci nun mu ne nangu kele tamit nga xamni mo tuumal serigne sëriñ momit di def ay yitte pour tubaab bi gem li wax ci la buur nak nebuto yonne ndawam mu dik gis ci serigne Touba borom darul moxti la dajal ba ko waxe borom daru mu ne kon nañ and dem ndam nga wax serigne Touba li buur wax ba agge ci ndam serigne Touba deglu ko mu ni buur ma yoni tuu tuuma giñ la tuumaal tamu défendre la légui nak touba bi dañu ragal kiat bi la tuumaal ceddo dafa am jikko ju doy war man nañoo jël ay ngannaay gaw ko sa kër ba pare lo ni ya ko fi def fekk defoo ko fi loolu lay ragal nak pour setter honneuram comme défendre na la bëggul nu bayyi fi ay ngannaay ci lo yegul takal la serigne bi nak nang wax ju rafet joju ca la dajeeg ak siin wax ko ni mom serigne Tuubaa li nga may defal lo ci djublu mu ne dara dama bëgg ñi wax dawkat ab xaj namuy ak boromam bu nako mel ci yow ci bir yowmal ci aljana sëriñ bi xam ne li sincère la ci moom mu ne ko sàllaaw doo torox fii doo torox fële doo folliku fii doo folliku fële dinaa la fal fii fal la fa ñu jëm ndax lu rafet lii nga ma waxal daal ni ko li nga wax nañ ci bàyyi ay xel taalibe yépp génn nag gaw kër gi wër ko ngir bañ saay-saay yi dugal fa ngànnaay yi bi nu ñëwee itam gis nga visite bi ni mu demee xam ngeen ni gaali sëñ Tuubaa yi lañ doon bënn di jàll ci kaw xay na dadul teggin di ci jaara ndax kooka léegi mujj na tuub ba mujj na yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall tudd Abdul Xafoor waye ci bobu jamono dal tek nañu fitna yu metti keur cheikhul sering serigne bi ne bal du tak na ñepp dal ta tok ca la bindé qasidam gi nga xamni ni rabbi maestro muy ñaan mu wane ni suñu borom garanti na ñukoy wolu tribunal nak ci atu 1903 gog muy dem di wuy gi ba tubaab bi décider ni dañ koy yobbu soit Madagascar wala ñu yobbu ko Mauritanie ñu am deux choix te ñu koy Madagascar ñu ne wala te ñu koy yóbbu Mauritanie fekk na boba cheikh Sidiya baba an anhu di sëriñu xaadar bu mag nekkoon gànnaar di kilifa ci xaadar ya bëgg sëñ Touba lool ñu waxtaan ak Cheikh Sidiya ci mbiru sëñ Touba mun leen man de yàlla rek a tax may wax ak yenant bi sama maam Cheikhul Xaddim liñ ko tuumaal demewul noonu sëriñ Touba de du tooñ ñitu jàmm la du tooñ du yàq ñu ne ko ndax buñ la dénkoon sëñ Touba di ñu ko mën a téyel mu ne waaw lii moo waral ñu deside bàyyi Madagascar dogal nak ni Serigne Touba dañ koy yóbbu gànnaar lolou moy zahir bi waye batin bi Serigne Touba ko waxal bopam dani man zanna sayri ribba ama aksasin misla masiri rahsa ama jaysasin sabata kaunahu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yakku sayra aksasin siwa jaza man liya qaada wa'danan jaza cheikhul khadim dafa wax ni képp ku njorti ni sama tukki bii ma tu may tukkiwaat ci gànnaar ci atu 1903 mooy ak sasin dafa tolloo ñu mën koo comparer ak tukki bi ba demoon ci géej gi muy atu 1895 ki njort ni benn lañ ñoom ñaar ay nattu la kooku dafa réer xamul li xew nee na kooku dof la te ku réer la ñu ne ko lu tax mu ni sama tukki ci géej gi ay nattu la woon yu ma yenu ji ngir turu islaam sama tukki gànnaar nag ak pay la buma yalla wara fay rémunéré ma jox ma sama salaire ta gànnaar la ko ndax nitu yalla ya nekkon ganar, liggéeyal fa seen borom dañ fa bayyi ay leer yo xamni ni leer ngay ball ci seen kaw xabru ya ta war dem jëli ji loolu lepp ci payu yalla sama borom fofu la dig kon zahir bi lañ tudd nonu la historique bi mais batin bi fay la gu Serigne Touba di jeli ji bi mu ñëwee nak mu dem Sarsara nu yobbu ko Sarsara bi mi demit xam nga Cheikh Sidiya Baba miñ ko booleel moko wara gatandu ci mu yoni ñaari ndawam jox leen ay geleem serigne baa duggé dagana bi mu duggé dagana nak dal di dem jere jeuf Cheikh abdullah Diop bisri tegal fofu sa baaraam damay ci wat ak yaw and ak yaw nu and ak serigne bi duggu biir gannaar ak xar yam fa def dafa melni résumé nga nu le 11 novembre 1902 bi serigne bi wacce waxu Moussa Sili yëkkati loxoom yi te ne day bakku hmm. mune sama bak nga ca kanam mooy bu sama sooroor ya taxawee mu jaar foofu nag def wërëm boobu mu wër ba ñëw sànnoosi ñëw kër mbàkki sam baabu noonu mu wëree kajoor ba ñëw daaru salaam daal di ñëwaat daaru naan ruuxale yi tàmbaliwaat ba nga xam ne nag ci la faboo nag ngir war a dem gànnaar mu waxal boppam nag ne man zanna sayri e qibba ami ak shashi misla masiri raqsi ama jay shashi zabata kaw noho jawlan qumra maanaam képp koo xam ne da nga japp ne sama tukki bi may tukki ganar. dafa bokk bima bi ma dem ci amba jeysi si si neen ab dof nga gànnaar mom dama fay jël ak pay serigne bi ko ardu salihin di fa fekk gaa yu bax yépp kon mangi ngi swat si waat ak yow ci kanam nga dugg ak man gànnaar gog nga xamné serigne touba toj na ko fa ku fa mës dugg rek joxe nga sa bop way bëggo fa serigne sëñ ma mesere ma ngi dil si ci yow yow damay dil si ci yow ya ngi won mbacké kadior serigne bi nak jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawal santigul daru salam def fa ab diir ñëw sanc daaru salaam jóge daaru salaam ñëw sañc tuubaa ñëw nag daaru xudóos fi la gise yonent bi sallallahu alayhi wa diggante boobu tarbiya gi mu doon tarbiya murid yi di leen yar ci himma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dar si fa xat wa rabba kulla waahidin minhum bi maa yaliqu bihi nga xam ne kenn ku ci nekk da laaj bi nga xëyee ba ñaata baat nga fi wax nga génn ci istixfaar génn ci salaatu ala nabi génn ci jàng alxuraan la ca dess di la rax mu ne la bu ëllëgee bu mu amati dem ba manam murid yi di nuyo ak malaaka yi di dox ci sii sakket di nan dox mu tàng diggante bobu la bëgg nga jëlël ma sëriñ bi mbacké kadior dik ak mom mbacké jaar ak mom daru salam ñew ak mom Touba Alhaji sëriñ Messere Maxtaar jëf Cheikh Ibrahim sëriñ bousra Boussra jëf cheikh abdullah hijab ci waxtaan ah, bi sëriñ bi bimu taxawalé yoon wax ne ku namm yàlla na ñëw ñu dem wootee ko ci Mbàkke Kajoor euh, mag ñi jaayanteeg moom ma wax la ne ba muy woote dana yàlla rek ci laa woote ñi ko wuy it loolu rek lañu àndaale mag ñi kenn ku ne buy ñëw la muy wax sëñ bi ñëw naa tey di gan fi yow waaye li ma tax a ñëw nag bëgg nga bernee la ma ko mooy ngërëmul yàlla kon ngërëmul yàlla loolu rek leen andi kenn ku ci nekk boo demee ca mbindum Cheikh Darou Assane moom nga cay fekk boo demee ca mbindum Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Jammoo yi moom nga cay fekk ba ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa yitte rek mooy am ngërëmul yàlla nga xam ne melowoowu tax ba mu jógee ba mu nekkee Mbàkke Kajoor nag dafa yar taalibe yi yëf yi mu xaj xat sëñ Mouhamadou Lamine Jóob Dagana nee na minhaaj bi nga xam ne moom la yor sëñ bi yoroon muy méthode bi nga xam ne moom la daan tërbiya moy daan leen xifal di leen sikarlo, di leen sikarlo di leen rawati rawatina sax jigen ni waye ba mbir ma siwe nak ñu tambali di fitnal yenn murid yi di leen xatal waxtu wu nek señ bi di leen ci di leen muñlo di leen xol da ci sahabatu rasul di wax na ñoy seeni bay ci diine ndax daj nañ lu gëna metti naq nañ leen ci ay ndox walal nañ seeni deret nungu nañ seeni alal genn nañ leen seeni kër ba tey seenu tag na fàng ci alquranul karim bu ko masaa wax daana leen ci tegal lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaikum as-sadiqun na ngeen muñ ba egg ci ne leen xanaa dana leen doy ëllëg bis ba nga xam ne yow ma naddu kullu unaasin bi imaamihim bis ba nga xamne bu ñepp dajé kenn kuñ sa turu njit ci lañ lay wo buñ leen woyé yeen mourid yi bu ma leen wujjulee de dana doy ci ku leen daan reetaan wala ku leen daan doyé dal ba yef ya xaté mu joggé fa ñew mbacké bawal def fi ab dir mbacké it ni ko cheikh bousra waxé bu señ bi daan julli ji danaan hmm. yobale cheikh Ibrahima Fall. Hmm. cheikh Ibrahima Fall moo tax bi tuxo mbacké lu ne fa waye Cheikh Ibrahima daa mësul nangu ku jiite sëñ bi bu nit masaa nek ci sapé si bu keneen masaa jitu buñ kabaré Cheikh Ibrahima day daw ci bir sapé di wax nan adom ah, seug nangam siggi ginangam seug nangam siggi ginangam mu mm-hmm. jubi sëñ bi di da nan bayyi bu ñew ba ci yoon wi lay bayyi Cheikh Ibrahima Fall ñew aksi ba amna yu ci xew yo xamne o fi ba'd umur ma la jibin mm-hmm ginaaw bi sëñ bi sañ ci dëkk bi ñu wax daaru salam di dëkk bi mu njëkk sañ mu sañ ko ci dësës muy 1304 hijriya dëkk boobu ci weeru wi di safar la ko sañ ci muy daaru salam ñaan ci borom amit mu nekk bu yar bu tarbiya dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la ndax rabbi biha min al wara ma la yuat ya khayra man rabba wa khayra man waat muy dëkk boo xam mag ñi fa lañ tambalé di di jaayante waxtu wu nek ku dégg sëñ bi rek ñew ba mujj dëkk bi xumbu lool jaxaso bi tambalé am ñenn ñi denc seeni bokk ñew di sétsi bi jaxaso bi baré nak mu bàyyiwaat dëkk bobu di daru salam ci wësës di 1306 jël dëkk ba ak juroom ñeen fukk dong nga juroom ñent rafaatale rakam Cheikh sidil mukhtar mam Cheikh antagawal mm-hmm. daal di ñëw ci dëkkam bii di Tuubal sax muy dëkk boo xam ne bi mu fiy ñëwit euh, wër na ci béréb yu bari ci aneer yépp ngir di dakk béréb bii muy xool li fi nekk ndax béréb la boo xam ne euh, mboolem gaa yu baax yépp fëx nañ da wuti ko ngir bëgg ko am muy Touba waaye Touba moom tànnal boppam ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba ngir sëñ Touba moom ko mm-hmm. bi sëriñ bi jaaree ci yeneen béréb yi ba suñ boroom won ko bérébam bii di Touba fii jumaa ji nekk tey ak béréb yim jaar nga xam ne mag ñi daanan ko topp sax di ko sedd di ko wër di toll ci fukk ak juróom benn wala fukk ak juróom ñaar daanan yor ay gànnaay di jóg guddi di wër topp àll bi di xool sëñ bi ba xam fan la nekk ndax àll bi mu dugg waaye àll bi lëndëm na lëndëm goo xam ne daana de fun jaar damu ngeer wala ñu damu dara ngir buñ mañ ko mëna xam fin jaaroon mu ne ci kër kër digënté digganteem borom waxtu wu muy nekk di reer sax ci biir tuba ñu diko set amna bis mam borom sam maam jaar julli ci jàkka ji ñeere mbacké ba julli ge ba nopi genn dajale fere yépp dama bëgg waxtaan ak yeen suñu waji ji hmm. dama bëgg ngeen xam woowu leen ba ngeen ñëw mu jox mu wut lu leen jox da am lu mu leen jox ba nopi door a woote woowu leen ba ngeen ñëw mu wuti da am door a ngir delo ci nit ñi ak dalal leen ci seen xel ba mu ñëwé it fa mu jaar gis nga mbal nekkon na fa te buba jamo me la yoni won daru salam don ko wolo ji Cheikh samba Diop Sam ngir yoon woowu mu takkon ngir bëgg a ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam te wax na amna ci ay galankor waye fi juma ji nek tay nga xamne mbarum ngeer la fi defo def fi ab dor dor baba sikkar lañ daan def gis nga boo gisee sikkaros Baay Faal si Cheikh Ibra waxtu wi muy ñëw booba sëñ Tuubaa mi ngi tërbiyaa mag ñi ci sikkar ndax tawaalifa gut booba taalifa gut xaside yi nga xam ne dafa jëm ci matxu yeeg salatu yi booba sikar la ñuy def bu jëmee ci jàkka ji dañuy ànd ak moom di sikkar ba mu agsi ñu toog mu def ay nawaafilam bu ñuy julli ñu ànd bu jullee ba noppi dellu siwaat ñu ànd ak moom bu ñëwee benn mu ne leen jekki leen wala mu bàyyi leen nu wéyal di sikkar loola leen mayoon ñu dem ba mboolem kiiraay yi doxoon seen digganteeg sew-sew yëpp dañ ñu mën di jàkkaarloog mbooleem secret yi di jàkkaarloog mboolem pays yi nga xam ne doomu aadama doxoon yegg fa sax jafe woon na ñu ngi ko doon amee ci sikkar bu dakkan xayru taami di muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaali maliki sëñ Tuubaa nee na murid bi na mu jëm ci yàlla ñam bi gën ci moom élément bi gën ci moom di ko dunde mooy saxoo tudd borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ñoom ñu wéyaloon ca saxoo sikar soseen di xiif di mar di xëy suba ba ngoon nga bu pepp wala kolkolub cere la ñuy am kibéerug seetal ak ndox da leen di jox buñ ko naanee buñ ko amaatee waxtu waa dellu si wat te loolu yàqul seen pas-pas ya ak seen yitte juróoy ya ak doxinu mag woowee ñu doon ndox moom mi leen di tàggatit te di leen tàggat ci himma mu yitte ju kawe waxtu wu nekk mu di leen gën a juxañ ak jëme ci boromam ci njaxlaf ga ci yitte ju kawe ja ci doxin wa te du may kenn benn occasion bu jàll nga xam ne lu ñëw rek mu laaj la ca noo ca doxe hmm. nga xam ne loolu moo indi woon léegi-léegi mu ne nit ñaati baat nga fi wax bi nga xëy ak léegi nga ne nit na ma de fay naa ko waaye ana waa kër gi mu ne bëriwut waaye ba léegi na gën a néew ngir won la yàkkamte gi mu yàkkamti ak xam gi mu xam fa mu jëm na mu koy doxe foofu mu nekk dafa tërbiye mag ñi di leen fi tàgg nga xam ne fii jumaa ji nekk tey doo dóorum ngeer a fi nekkoon dañuy wax ne amoon na juróom-ñetti kees kees bu njëkk gi rek moo amutoon ab néeg waaye kees yëpp amoon na ab néeg fii tey Cheikh Mahamadou fii jumaa fii sëñ bi nekk tey Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom Xaadimu Rasul feeñe fi feeñe fi jamono muy baagante nag diggante daarul xuduus diggante daarul rahman muy daaru naar kër sëñ Chouaïbou daarul minan di yendu fii léegi-léegi mu ñëw fanaan fii di baagante di tab def nag doggu tawaalifam yi nga xam ne mooy tàmbali xaside yi nga xam ne lu mel ni taiya رائية ميمية نونية من اللي قلبي له في أعتاب الجسم تكرار أكمل سليمان بسرف عن مسيات القلب منية في اليوم قد سلم yooyu yëpp nga xam ne da koy da koy def ak xataaba xal bi yàlla allahu sallama ni xasida yooyu mu tàmbali di ko taalif di taalif yeneen yeen yeneen am ndaax yi nga xam ne doxin bi di gën di gaaw jëm ci jëm ci boroomam nit ñi di ko dégg waxtu nekk di bàyyi ko fu nekk di ñëw waaye bu ñëwee lu ñuy wax la sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy waxoon rek haza ziyaratuna يا روضة الخطباء يا قدوة العلماء يا ملجا البصر خيرايا فوز وردوان وتكريمة وعافية الدارين يا وزير لي رك ما عندي وون موي غيرم يالا لو صدق كو نيو رك عندي لول مام تاخاج ام فمو جيم دار الخلوص دار الرحمن موي كير سيرن شويم دار الملان كير كير سيرن بشيرو بلب يوي نيك بلب يو خامن دا سي دا سي باغا خامن بن بلب بو ñaata talif dafa talif ñu sul ko fa yoo xamne lu ci nek ken xamul dayoom ci digeenté mak tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam ken xamul dayoom ci digeenté mak julli ci yonnati bi alayhi wasallam ndax nim rawé ñi tag ñi ñiy tagg yonente bi sëñ Tuubaa nim leen rawé lolu du sëñ bi mo wax ne ma leen raw wax nako ci cay mbindam dun ay talibé ma tok naan sëñ bee raw way sëñ bi neena yonnati be ko wax ne ya ci raw wer ta lolu defena jang jàngkat yi dama wax ne lima jaxal fi ne tay ko ci tudun yusuf ibne ismaeil an-Nabahaani ñoom xam nañ Yusuf ibn Ismaïl al Nabahani ndax moo taalif jaami karaamatul awliya ñoom d'accord nañ mbiram te jaami karaamatul awliya dañ koy jàng ci adduna bi yëpp ñu dajale ci dajale ci mboolem karaamay awliya yi Nabahani moom ma nga nekkoon Liban ku mënoon a tagg yonent bi alayhi salaatu salaam la dañuy wax ne moom egg na ci sax bu sëppee xalimaam yonent bi jox ko loxo sallallahu alayhi wasallam te jamonoon tuut ak moom sëñ Tuubaa la bokkal jamono waaye gisante wuñ ci zahir waaye nee na am na bis dafay dugg xalwa di laaj boroomam na ko ndax am na ku tagg rasulullahi lu tolli li ma ko tagg nee na yonent bi ne moo ne ku ñu wax Ahmadou Bamba kenn jutul asakaam ci tagg ma kenn jutul asakaam ci tàgg ba hmm. te nabaxaani moom i wax na loo xam ne c'est pourquoi bu ñu waxee dara ci sëñ rek ñu ne ñii dañu nekk daanaka wala ñu nangam mais nabaxaani moomu gisul sëñ Touba ci zahir te dem na ba wax ne ku rasulullahi raw Ahmadou Bamba raw la perte ga hmm. nga xam ne loolu wax ju wax ju wax ju من مولير لما تعمل ايش هو نجاري معلوم لله فضلا لا يمن فضل غير ممنون هو القديم الذي لو له ما سجدت على الجباه ولم تقر به النون من فاته محمد المختار من مدر فاته خالد المختار مغبون اسكي كون كون كون داني لونغو نيوني لولو ني واخ مل سيني توباب سيني مولاي بوسو واخ ني بولا تاغ يونتيب جت اذا استرغ العباد كان امامهم وفي مت خير الخلق قيد الاوابد لقد فاق كل الفسلة على النبي فيها بدا تقديمه بالمشاهد بودي جيتو تاغ رسول الله موتي راو بودي جام يالا موتي راو موت داف ام داخ يوتول نون بي نيي باتي اتوم بيسس دي 1312 مو غاناي داف انغاسمان بو خامني خامغا داغي ديغ ليغي نيو ديو غورغا مي سيغ توبا موي غور لوكو دال goree ko yóbbee. ndeysaan jërëjëf. wallaay ndeysaan jërëjëf sëñ Gana jërëjëf moom murid la. ànd na maag moom dem Makka waaye manta wax ci Serigne Touba ñaari baat jooyut waaye loolu la ko Serigne bi fay àdduna bépp sopp ndax Serigne bi moom ñemewul bor dafa am fay saa bu ko lebalee ker guddi la lay fay foo jot xalum